leen rek mooy li nga xam ne euh, jàpp naa ne loolu tamit urgence la sax yaa ngi wax sànq urgence yi. Mm-hmm. benn ci urgence yi mooy pale palais palais urgence palais nu mu bërëb bu lëndëm la Cheikh Bamba. palais euh, loge maçonnique mu ngi fa. loolu bu yéeme bi nga xam ne. Euh, man ragal naa ni mooy jël en otage toujours président yi ñëw au pouvoir des fois da gis quelqu'un bi nga xam ne am na yéene. te am na yitte. waaye bi ñu ko dugalee ci biir palais bi. ba sol ko seen chaîne yu satanique yooyu chaîne yu seytaan yooyu bi ñu ko solee kooku mun naa mu nekk keneen man jàpp naa ne palais bi dañ ko war a dañ ko war a raxas dañ ko war a raxas. Euh, ci kattanu borom bi maanaam ci leeru alquran ak ci tur yàlla. balaa président di fa dugg ndax palais bi lu la. Euh, palais dafa mel ni benn monde la ci biir dëkk bi bañ koy ba bañ ko tabaxee ba tey euh, lu fa xew dafa bëri lu ñu fay def ci biir dafa bëri am na mystique bu bëri bu ngay def ci palais bi man euh, ay jamono jamono suñu jamono Abdoulaye Wade nga xam ne Abdoulaye dafa demoon demoon na ba gëm sax ni mystique ko téye moom hmm. Abdoulaye dem na ba génne ay jaaroo ak ay bant téye ko te du toogat si du toogat si siisu gars yi buy dem réunion sax day jël chaise do si biir otom pour bañ a toog parce que gars yi koy ay saafara ñu koy sotti demee ba président te mooy institution bi gën a wóolatul ay collaborateur ne dañ koy liggéey ci palais baak ci ci ay chaise am nga xam ne problème am na kon ci réew fii dafa am dafa am jaxal dafa am dafa am ignorance am shirk mm-hmm. bu extraordinaire bi xam ne dafay dund ci dëkk bi te gis nga Cheikh Bamba man dama gëm ni première entrave au développement nekkul sàcc yeeg ñàkk liggéey bi de mm-hmm. man dama gëm ni euh, a shirk mm-hmm. mooy le premier frein au développement shirk boobu bu ñu ko réglé wul euh, lépp lu ñu teg après day yàqu rek ndax ay shayatin ñooy ñëw di ko di gën a di gën a yi gars yi nekk ci benn cercle infernal bi duñ ci génn man gëm nañ dañoo raxas pale dañoo war a waajal tamit suñu président loolu moom vraiment mm-hmm. mission la bi nga xam ne euh, am nañu si ñi ma jàpp yoo cee dox euh, waajal président ci musal ko ci shayatin yi ak force yi yëpp di war a nekk ci kawam ndax fii Sénégal ngay gis waxuma sax président nga gis agent bi nga xam ne ko affecté ci benn service directeur am kese moom mu dem uti ay ba ay dem pour liggéey ko parce que dama koy liggéey comme ça am teraanga ci entreprise bi waaw xam ne mooy chefu chefu chefu directeur yi moom kooku moom ban pression mystique ci ñi nga xam ne seen iman dëgërul mm-hmm. amuñu tawhid mm-hmm. ay dañu ay jaahil lañu naka la ñuy def kon ci kaw kooku donc euh, loolu chantier bu bu urgente la bi nga xam ne vraiment avant prestation serment man de wax dëgg yàlla euh, amoon naa xalaat ci naka ñu a prêter serment waaye comme yoon moo tënk Sénégal. tout à fait euh, ñemee ma ko wax ne ko da nga war a dindi nangam. waaye man vraiment ni ñuy prêter serment man man neexuma dafa xaw a dafa xaw a maçonnique. waaw ah, ah, c' est un peu maçonnique ay rituel la sax dafa mel ni ay rituel la. Mm-hmm. donc euh, vraiment jàpp naa ne après suy def refondation institutionnelle Sénégal yi. yi yëpp war nañ xalaat jéem ko changé am une république bi nga xam ne qui nous ressemble. république bi nga xam ne elle est sénégalaise elle est musulmane ndax Sénégal bi nag suñ ko waxee ak suñ ko yëpp. Sénégal dëkk bi jullit yi ñoo fi ëpp Sénégal c'est un pays bi xam ne qui est d'abord musulman ensuite un pays croyant ndax cent pour cent ñoo am ñoo euh, diini mooy chrétien et musulman suñ koy boolee cent pour la waaye nag l'islam moo majoritaire et dans tous les la majorité mooy exercer le pouvoir te demee dëkk tubaab bi démocratie sax c'est la loi la majorité donc le pouvoir la majorité Sénégal fii kon dañ ñoo nax ci démocratie ndax musulmans yi ils sont majoritaires te ñun jëfewuñu l'islam bàyyiwuñu l'islam ci dara donc loolu vraiment lu ñu war a joyante la bokk chantier institutionnel yi moom moom junj na ko. avec les vice présidents avec lépp lu ñu war a changé. man jàpp naa ne yëpp incha allah dina nekk ay waxtaan yu yaatu. yu ñëpp mën a xaj. Mhm. comme saa ku nekk ak di xalaatam. ñu tam am nañ suñu en tant que musulman. te foofu la ñuy woowee tam ñun sénégalais yi ndax ñun vraiment euh, jamono bii ñuy gën a dëggal suñu bopp ci optique politique bu ñu am mhm. ci wàllu islam avec parti bi xam moom laay jiite muy rassemblement pour la vérité dañoo gëm ni dama koy tooñee sax ñoom jamaayam la neen soo leen jëlee dëkk bi tuuti mhm. euh, ngeen def l'essentiel mhm. waaye li koy soppi dëgg-dëgg ñun waa RV ñoo soppi ko ndax diine kese mën defar Sénégal donc loolu yàlla ñu si yàlla dimbali defal ñu sutura insha allah rabbi euh, donc baarakal